wolof njaay day léebu naan sàccub ndënd yomb na waaye foo koy tëggee moo jafe ba tax na seen yi pexe seen ndëgg sërx yëpp daal dinay tàbbi gi la ñu jàppoon ne buñ jàppee Ousmane Sonko xañ ko jant bi daal di koy tëj kaso dana tax dëkk bi selaw dana tax kenn dootul yëy yàbbi jëmale ko ci moom def nañ lu nekk ay milliards yàq nañ ko waaye teewul ndaw yi Sénégal daal Ousmane la ñu bëgg projet bi mu leen jaay jënd nañ ko ci njëg bu cher te dootuñu xàcc mukk ci njëg loole ba tax na Amadou Ba ak ñamu àndal Macky Sall ak waa Benno bokk yàqal Sénégal foofee ci Touba wala ca Proxaan ña nga leen di sonkorisé mbokk yi ñu teewlu vidéo mbokk yi lii la olof Njaay di wax ne kuy fàtte démb doo gor waye nak ko xamne ni nga faté la la fal sag folleku du wees tax na ñom jamono ji fuñu jëm rek ñu yuuxoo leen sonkorisation bi nga xamanté ba mu xew ba tay am na ñu bari ñu ci am jafe-jafe ñu jàpp ne jafe-jafe yi nag day dooro door ndax le 4 février bu fekké ni ubbi nañ campagne bi waaye tey Bassirou Diomaye fay ci biir kasso bi ñom dinañ xamné lépp dëgg la même sax buñ ko bayé mu génn yi tamit danañ xam ne lépp dëgg la ndax it sonkorisation bi dafa am lu am solo biir élection yi waaye am solo ci campagne bi nga xamante ne dinañ ko def ci région yëpp yu daje yëpp moo xam Touba Tivaouane Diourbel Mbacké Dakar Guédiawaye fu waay mën a nekk ci Ndar moo xam Fuuta ñëpp daal dinañ wër ngir wane seen programme te jàpp nañ ni sax mbirum programme comme ni ko Pape Moussa Sow di juriste bu mag boobu waxee amulunu sol ci jamono ji jamono ji lam ñu amal mooy référendum lañ dañuy fexe rek jëlee fi système bi fi nekk nga xam ne depuis 1960 ñoom ñoo fi buum di buumi ñoom ñooy toog am li ñu war a am ci réewum Sénégal séddale ko waaye nag ci complice bi nga xam te ne waa France dugal nañ seen loxo ci askanu Sénégal développement bu Sénégal économique bu Sénégal lépp ba ci ba suñuy xel suñuy xalaat nañu war a tànn sax ngir ñu jiite yi maanaam moo cay dogal àndal Emmanuel Macron doon complice suma Macky Sall ak ña mu àndal ba tax na fipp jot na taxaw temm jot na.